3S Pro. jërëjëf mbokk internet seen làmb TV mbokk yi mbégte la waat ak contentement mbokk ñu jàkkaarloo teg yéen ah en route vers le 5 mars incha allahu rabbi 2023 foofu sa arène nationale mbokk yi bis bu rëy événement bu rëy xew-xew bu rëy mbokk yi bis la bi nga xamante ni nee la addina bi ñoo koy xaar rawatina yow miy dunda làmb yaa ngi xaar boobu bis wara dox mbokk yi si diggante Sa Thiès doomu mbër jàngil bëre rek Balla Gaye 2 waaye mu war a jàkkaarloo xale bi nga xamante ni moom tamit wala champion bi nga xamante ni moom tamit doomu mbër la muy bi ah di rakk si ki nga xamante ni mooy Khadim Ndiaye mbokk yi mu nekk nekk combat bi nga xamante ni commencé am tension wax ji bëri na ku nekk mu ngi wax Reug Reug dafa lii Sa Thiès dafa lii tey nag dañoo wàcc fi nga xamante ni mooy feefu Sa Thiès yaakaar naa bu ñu nee Golf Sud yaakaar naa ñëpp xam nañu Balla Gaye 2 fa la dëkk waaye rakkam bi Sa Thiès fa la dëkk waaye jotaay bi ñu toog tey yaakaar naa Sa Thiès heure bu deful fenn bu ma juumul man amoon na fi bu ma juumul Sa Thiès fi lay toog di waxtaan ak ñoom. di bokk ak ñoom ataaye wala di bokk ak ñoom lépp li nga xam ne day xew fii moo tax tey mbokk yi ñu wàcc fii fas yéene seq ak moom waxtaan bu am am am solo mafia bi nan la ñuy waajee boobu événement mafia bi li ñu def tey mosuñu ko def toogaay bi ñu toog nii tey mosuma leen gis ñu toog fii di waajal li nga xamante ni mooy combat bi ndaxte yaakaar naa lépp si combat bi la dox bu ma jógee fii Kalidou dañuy demaat Thiaroye noonu ñu koy defee fa nga xamante ni mooy feefu Reug Reug xoolaat mafia Reug Reug nan la ñuy waajee bile bis ndaxte bis bi daal dafa rëy te nag bu rëy boo koy rey Kaldu yaakaar naa da koy rey si bis bu rëy mais bisu le 5 mars mbokk yi ku yër doo gis doo am place waaye bisu le 5 mars bu arbitre bi sifflé mbokk yi sàkki Reug Reug ku yër doo gis jël la. kat appi lay doon bëtt lay doon caxabal lay doon nooju lay doon wala tegal siis lay doon mbokk yi dañuy dañuy yën yàgg maar ñu xool fu wàññi mu jéggi itam waaye un grand merci à Dundaw Dieye borom Morok bi nga jàppee ba léegi bàyyi woo Dundaw Dieye maa ngi lay kontaanee bu baax di la ñaanal yàlla taw feex ak sutura Kaldu gaa yaa ngi nii Gabi la ak ñi nga xamante ñooy mafia Sathiès damay nuyu rek sama waa ji ki nga xam moom moo féetee gauche bàyyi ko mu nuyoo moom bàyyi góor su ma presse bàyyi góor jox Alaaji As mu nuyoo su ma presse Alaaji As doo ko jox Gabi mu nuyoo ñu doog a ñëwaat. Abo la bàyyi góor ak Gabi Alaaji bàyyi góor wala Abo bàyyi góor nu mu mën a doon rek bàyyi góor ak Abo yëpp benn la ndax si jotaay laa leen fekk maa ngi lay nuyu ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax jëriñ yéen si jàmm lu ngeen def ak coono bàyyi nañu am tawféex kon alhamdulilah. nuyu naa la. yee maa ngi delloo nuyoo bi leen siyaar bu baax a baax yéen ñëpp xam nga yéen ñi dep déplacement ak dérangement xam nga ñëw ba fii fekk ñu fii golf ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu suñu mbokk internet yi bu baax a baax baax waaye. maa ngi lay nuyu Baye Gabi. waa mais doom yaay maa ngi lay siyaar na xam wàllub taw feex sant nañ yàlla waaye mais yaa ngi cool baax waaye waaw jotaay bi nag namoon nañ ko ci yow mm. waa parce que tey la tey tey la tey tey la tey da ngeen paccal li nga tour bi doom day rëg-rëg tey la war a dégg dëgg mu xam ñun ñooy kan lamb kan boobu lamb ñu jaral bàyyi ba sa waay wax ba pare bay góor lii am tey yaakaar naa mosul am saa kees jëm événement ngeen toog ni jataay takk seen drapeau bi nga xamante ni yaakaar naa mooy waa jotaay bi pro derrière Sa moom kese la ñuy topp yaakaar naa loolu ngeen bind si drapeau bi tey lan moo leen inspiré à ce point tey ngeen def li ngeen def. waaye waaw Sa Thiès sunu sunu waale nit ku baax la ku joxe cër ku si koo xam yëgul succès fi lay ñëw toog ak ñun waxtaan naan ataaya fi lay nekk chaque jour mais comme préparation làmb beeg yooyu xam nga il faut mu tëju tamit xaw waajal ndax mbër bi ñuy dajal moo tax mais làmb ji lu mu jaral rëg rek jaral nañu ko raw. waaw pare nañ si tous les plans mbër mi jekk na buñ bëggoon sax bu subaa ñu arbitre sifflé ko. pare ngeen ni. jekk bu yàgg. gars yi da war a toog bi veille bi yëpp da ngeen xaw a tiit. gisoo ñu amuñu benn protection si mbër mi gisoo ataaya leen teg nii di waxtaan. ataaya leen teg wax yëguñu sax ndax dafa sedd. yëgu leen loolu ni yàlla xam ne yëguñu ko def suñu drapeau cinq mètres gisoo ko waxu leen li nga xamante ni yaakaar naa moom ngeen gëm la ngeen di wax nii pour lu ne amateur yi rek ñun yàgg nañ bëre bisu mag ñun bisu mag jaaxalu ñu rek rek lamb simple la toj wante arène bi bëre dóor la ñu wax rek da na moom li ngeen di wax nii yéen a koy wax ay Sathiès du ko wax si lu mu yaakaar Sathiès nag bu mag la du nag bu ndaw nag bu mag war ñee boo wàcc loo waraat xeeb Sathiès dafa bëre événement ba sonn waaye Reug ba sonn. doomu Sa bu ndaw bi. xamal na ko nan la war a daanee Reug Reug. Reug Reug sa waay copine ñooy la ëpp muy bànni bànni te garaaw du dërëm. am wax xam te ñaari xajang fi ah moom day jël benn Xaarim Ndiaye jël benn ku nekk jël benn saaf lekk. Eh, bàyyi tooñ si yoonam. ba le 6. xaj. non la ñuy waxaat. le 6 le 6 ku nekk day jël benn xat mi séddoo ko ñoom ñaar. mais li nga wax rëy na de. moom bis bi moom la moom la moom la moom la tiital ndax Reug mi ngi soog a am bis bu mag. moom Reug Reug. ba mu dalee ba tey musul bëree ku mel ne Sa Thiès ba mu dalee ba tey musul am champion bu mel ne Sa Thiès Reug Reug du puus du paas lu mu indi nag fekk ko fi. gabi yéen tamit ñu gis ni da ngeen jóge ci benn événement bu rëy perte diggante ak Boy mais boobu ak léegi dañ leen gisante mais nga am benn engagement bu doy waar seen ginnaaw frère Sathiès lan la defet bee moo leen métti ba léegi wala lan la. non Dame day xam nga làmb bu nekk ak lambam euh, boobu jógee nañ ci fàtte dañ ko sax ba xam daan nañ bëre ñun bii ñu ñor bii mooy suñu làmb ñun Sathiès gisoo liñ bind moom kese la ñuy topp topp ñu keneen xam nga ñun buñ toxawee gisoo di teg caaxaan nii di foo xel mu wu nii waaye may ree kaf <laughs> te le six tamit nii laay toogee di kaf a ak man maa la wax lii. doo xalaat vaar. vaar pour lan. ku ànd dafa lijjanti vaar. ku ànd ak wo Thiès lijjanti woo vaar. Ah, moom lu la neex waxal gars yi loolu ñu wax. non ñun ragaluñu kenn. Reug Reug Reug xam nañ ko. ni muy bëree loolu teg-teg boobu noonu jaaxalul booy bi. si la daanee guy gi si la daanee ñoom Elton. non waaw loolu waa garaaw loolu loolu dam day loolu xooy ma guy gi champion la euh, ak kan nga waxaat nga ne moom la daanee kan Elton waa ñooñu champion lañu. waa mais wuy ma wuy ma vrai champion baa ngi vrai mooy doon vrai kan kii mooy vrai champion bi Sa Thiès lamb ji laa wax de moo ci Ronaldo moo ci Messi. 10 ne moo leen mën 10 te bu daan bu nekk du bokk ak morom. barki Seydina Mohamed yow mii xam nga ne yow yow yow mii mi may introsé nii xam nga ne yow rëg-rëg li mu wax nii amul. déedéet man ma si dara. non yow mii yaa ma ko gën a xam. doomu Double Less bi ku la ne 10 combat ma daan la day sóob. combat bi li ngeen di waxee nii est-ce pression tamit si Salif. non déedéet Sa Thiès Sa Thiès yàgg Sa Thiès du am pression Sa champion la defal nañu lu ne. non pression ñun kii wuñ ci doom day ko ànd ak pression di nga teg saataaya di bëggee kafre di ànd ak ay góor fal ànd ak abo ci wet gi grand frère yi toog ne kooku ku am pression di nga gi di ree barki Mouhamed amuñu pression ñenn ñi boo leen déggee ñenn ñi naan dañuy éviter Sathiès ak wi ni prib moom ma am ba jëm si kaw rek rek rek rek di nga traité ngembali gaa yi ñu bëri nañu rek bu xasee ba jàpp Sathiès waa géej waaye moom bu leen neexee moom mën nañu jàpp seen bopp te dem xam ne du baax waaw mooy ñooñu xamul Sathiès la ñuy wax waaye ñu ñu xam Sa Thiès xam li mu capable xam li mu mën Reug Reug bu ko neexee maanaam buñ ko bëre woon biir kër Reug sax Sa Thiès koy daan déggoo ma de moom na taxaw dëggal boppam rek te li muy wax nii nag moom Reug Reug na ko def de nee na dix combat day daan Salif dix combat yooyu na fexe ba na dëggal boppam barki maam Serafal déglu ma bu taxawee combat bi du yàgg Reug Reug dama ne la moom matale te ñun ay gaz nan bokkunu te matt day xaw xaw a raaf de moo la gën a xam li ma ko wax. déggoo ma de rek rek moo gën a xam li ma ko wax du ngaaga. rek eh, rek du tuus. nga jàpp batterie lañ. mais tuus te ngeen jël ko góor ki yow gabi kan. ci lan. waaw mais Reug Reug waaw mais def na def na waaw champion la loolu dañ ko koy nangul def na lu nekk ci lamb lit simple def na xam nga. waaw lit simple war a kii est-ce que comprendre mais ñun tamit sa waay combat bi dañu ñor. combat yi ñu daan bëre ak bii sa waay ça fait deux. yi ni forme Reug Reug am na lu mu commencé def si yéen yéen waa golf ak waa géej ah, waa daa tiit dafa yokk poids loo xam bokkul si poids am gis naa ko mu yokk maas bi. sa moomul poids bi. non poids bi moomu ko. waaw dafa dugal si yaramam loo xam bokk si quoi. waaw dafa dugal si yaramam loo xam. nga xaw de non non dafa dugal non dafa dugal si yaramam lu si bokkul la gisoo yenu ma benn pression dama xam li nga may laaj le six boo ñëwaatee moom ngay déggaat yenu ma si benn pression dama xam Salif xam li mu capable xam ne mbër kaamil la. loo koy dawal si rek rek moom Salif. dawalu ma ko dara mooy bu arbitre sifflé la mu doon def lay def li ñu wax naan daa juum noo li may bañ daal mooy mu fëgg dënn di jox euh, public bi. mais bu li mu defoon si booy ñaa loolu rek laay bañ mais bu arbitre sifflé fu rëg rëg nekk mu fekk ko fa Reug Reug xam ni moom saalif da koy si loo tax mu yokk poids ci si jëmum lu si bokkul. Ah, waaw loo tax mu yokk poids mais mais bu arbitre sifflé fu mu nekk fa la ko Salif di fekk bu teggee tànk rek mu ngi fa mu ngi si kawam. actuellement am ngeen confiance te yaakaar naa la cinq ñëwagul lan moo leen gën a convaincre ci Sa Thiès moment bi ñu toll. Sa bu amul combat sax day entraîné sakamtuma nag mu am combat Salif xale la xale bu ndaw la. te barki Serigne Touba bu gëmee boppam teg combat fi mu ko war a teg fonk combat bi. yaa ngi dégg baal ma la Reug Reug nag dañ koy nangu champion moom seeni jaay xam nga moom mun nangu ni moom kuy bëree champion la bu ko tegee si yoon. déggoo li Sa Thiès wax kuy juum di daan boo juumul nooy def déggoo ma de. dañ ne ko yow da ngay juum di daan mu ne leen man kon su ma juumul nan laa war a def. mais aussi ñu doon juum di daan ak Reug Reug mi est ñoo yem ak adversaire ñoo tolloo doyo. moo tax ma ne la Sarif liñ koy digal nit ñëpp mooy mu fonk xam nga teg combat fi mu ko war a xam ni géejewaay yëpp yëpp yëpp yëpp ñi ci am waaw tamit yaakaar naa tey mooy euh, dernier face to face laataa ñuy def seen euh, open de presse ñoom ñaar ku nekk le premier yaakaar naa di mercredi incha allah ku nekk war nga def ñoom tamit euh, seen dernière waxanteeg seen ay supporters réglage yi dernier réglage yëpp yaakaar naa mercredi la tey jii mooy dernier face to face tey ana tey ban taxawaay ngeen war taxawee tey bisu tey jii ak lan ngeen fas yéene mobiliser yéen waa golf waa géejawaay pour topp si ginnaaw ki nga xam ne mooy Sa Thiès waa mais xanaa ànd ak champion bi rek euh, toujours di koy ñaanal ndam di woo gars yi nag si combat bi na ñëpp ñëw mobilisation bi na gars yi ñëpp ñëw jàpp ci Sa Thiès nitu nit la gis nga Sa Thiès barki Seydina Mohamed Sa Thiès xolal mooy nit ki nga xam ne foo ko woo mu ñëw wuy si la ma xola ñun mosuñu dugg ci ay làmb ay nii ak nii mais moom moo ñu ko kii loolu la tamit est-ce gars yi nag ñu ngi leen di woo na gars yëpp ñëw ñi def comme dab la woon fa woon champion lañ yor ñun du ay ragal est-ce dañuy dem def benn face à fas nii rek xam nga yaa ma gën xam comme dam ñu ko daan defee rek yàgg nañ koo def non voilà loolu la tamit waaw bu kenn noo xale caaroy bi <laughs> cey saa Thiès cey bu arbitre sifflé ba mu méb dox sa kaw mbaa di nga taxaw waaw looloo looloo gis combat dama koy daan bu arbitre sifflé dama ne bu arbitre sifflé doomu duubalees yi ñu ne ci forme arbitre sifflé ñi mépp dox sa kaw mbaa di nga taxaw. li mu lekk si neex rek. yaakaar naa la seng ñu xool fu ma ne mujjee gisam saa dina xeex dina xeex rek. luy da koy duma daan ko nganaan naan dina xeex Sa day duma rek rek daan ko moo ko mën moo ko ëpp doole. fu muy jeexee Sa Thiès xoolul rek rek. fu muy jeexee sans dépense rek rek mooy choisir mam na taxaw rek. ko ëpp doole ñoom Sa Thiès ko doole fuuf. ku dàq bëre. Sa Thiès. kuy daan mi ngi noonu Kalidou yaakaar naa wax ji farankulaayu na falaa koy yemalee rek yaakaar naa lu ñu cërale woon si waxtu bëri na waaye mbokk yi ñuy gërëmaat ñi nga xamante ñoo internet seen lamb TV yëpp parce que tey la ñuy laal suñu 100000 abonnés xaw ma barki démb la ñuy laal suñu 100000 abonnés te yaakaar naa 100000 abonnés Kalidou pour man du ay caaxaan liggéey moo koy joxe waaye pour liggéey bi joxe ko yaay def li nga xamante ni mooy tax ñi lay seetaan abonné kon yaakaar naa dañuy gërëmaat képp ki nga xamante ni rek yéen ngi doon topp boobu ak léegi di ñu seetaan lépp nag lu ñuy mën a wax lu leen métti jàppaleen ni suñu mati di la ndax lépp lu ñuy def rek dañuy bëgg lu leen neex lépp lu neex lu neex aussi tamit suñu kàddu jàppaleen du sëriñ du ndey mbàkke du kaal du làmbaloog suñu borom la ndax yaakaar naa kuy wax ku ne ku koy déglu mooy mbokkam kon ñoo leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla defal leen jàmm ku nekk li ngay yëngu yaa ko xam yal na la ko yàlla defal waaye kaldu bul fàtte lépp xale koy def sansi xale def wax koy def liggéey mu baax xale koy def kon yaakaar naa lépp xale koy def gars yi man ak yéen la de du ma bàyyi mukk bu ma jógee fii damay borosliku dem kër Sa jël départu Sa Thiès ànd ak moom fi nga xamante ni fa la war jàkkaarloo rek suba incha allahu rabbi ma wàcc caaro yi jël mafia caaro yi waxtaan ak ñoom ñu tontu ñi nga xamante ni ñooy mafia Sa Thiès mbokk yi dig daje léegi léegi ñu waxtaanee ko jaay ngeen jëf. ñu bëgg sensibiliser nit ñi ñu wax leen di leen woo si non à la violence bi quoi. kontaan rek di bëgg bu baax si fekk si bi ngeen ñu fekk si fii seesuñu xam nga ñu tamit ñuy wàcc suñu combat depuis boobu ba tey xam nga di ñaanal suñu mbër muy Sa yàlla may ko ndam ndam bu sedd guy te gaaw waaw di woo ñëpp nag ci làmb ji xam nga di woote nag ci non à la violence. Fadia. Cambérène 2. Nations Unies. xam nga. waa la ci kaw waaw. ba géejawaay bi yëpp. est-ce comprendre ñu ngi woo ñoom ñëpp fan sa Sa Thiès fu mu mënta nekk ñu ngi lay woo ci làmb ji na ñëw nag sol lu rafet toog ci kaw yëngal Sa Thiès yëngal si suuf ñu jàpp rëg-rëg daan bu kenn coow bu kenn kii fair play lañ ñu xamee suñu mbër mosuñu koo dégg si ay tuuxa duna mosuñu koo dégg leen ñun nañ mel noonu rek ñun supporters yi rafetal respecté ak nit ñi est-ce que comprendre dem bëre daan ñëwaat lëndi ba ñu toog fii nii ñu toog fii nii ñu ataaya ma lay jox ngay naan ñuy wax liñ doon wax <laughs> est-ce que comprendre na Xaadim Njaay tons sa ñaari xaj yaa ngi fii guddi guddi dinaa la ko jox guddi guddi tons dinaa la jox sa xaj bi force la loolu munu ci dara da kay jël munu ci dara waaw yow ñaari pitbull yaa ngi fii da nga ba ma génnee leen bàyyi non bàyyi ah ñeme woo ah kon garaaw la mu problème comme que ñeme woo